li ci yéenekaay yi dañu koy du rek euh, Walf Quotidien mi daal di xëy nag euh, fësal kàddu yi euh, mouvement M2D mi nga xam ne ni amaloon joroon taskatu xibaar ñoom nag opposition bi nag fexe nañu ba rek jël xeex bi yóbbu ko ca bitim réew laaxaandi ko ba ñëpp jote ci loolee nag bu ñu ca toftalee lañ seen sàkkuteef bokk na ci dàq gi ñu dàq élection locale yi ñu daal di koy teg ci suuf waaye itamit wax ci ñi nga xam ne ñoom jàppee nañ ne nervi ne ñoom ñoo faat askan wi ci manifester yi weesu report local yi wala quotidien yi ni kay moom la koy fësal ne mouvement M2D nag jamono ji euh, métitlu na état bu Sénégal li mu rek bëgg euh, dàkkandi li nga xam ne ni moom moo di élection locale yi ba mille 2022 ñuy xam ne nag njiitu réew Macky Sall seenub kàddu day muus muuslu Vox Populi nag ba tey mouvement m 2 la jox kàddu ne euh, bi euh, seen teelu xeex bi ba tey jot na ñëw rek fësal lu toll ci ñeent fukk ak juróom-benn million ci suñuy koppar euh, seen chiffre bilan ñu ngi ko rek daal di fësal ci xët yi de mbiru nervi lañ cay sàkku mooy leeraange ci fànn wile. libération yéeni kaay nag wax ci situation coronavirus fii ci réewum euh, Sénégal tendance bi ñu nemmeeku nag mooy ne day wàcc bu baax a baax ndax ci xayma journal bi ne euh, niki ki 19 mars ak euh, démb rek daanaka cas wàcc na bu diggante 2606 cas jàpp 1215 cas ci wàllu gërëm sax la ñuy def ak le soleil kaay mi daal di jox kàddu. docteur Annette Seck Ndiaye moo nekk directrice bu PNA di programme national di euh, euh, pharmacie nationale d' approvisionnement moom directrice bi la nag daal di àddu ci conservation vaccin yi ak séddale gi muy xam ne ni lépp euh, yemb naa bu ko defee ñu ngi xaarandi gum ñetti million dose vaccin Johnson Johnson yi tey tamit denc gi jàpp na dina mucc ayib. lii quotidien nag wax exploitation carrière euh, suuf sa ca commune bu euh, Thiénaba ab càcc lañu ca nemmeeku ñu ne sax naka euh, la agent ya nekkee foofule organisé woo ba rek këpp lu toll ci ñaari téeméer ñaari ñaar fukk ak ñaar ci ay millions ci suñu koppar 24 heures addu ci. jafe-jafe gi nga xam ne ni njiitu réew Macky Sall mu ngi koy jànkonteel gannaaw bi fitna gi amee ni ki ñett jàpp juróom-ñetti fan ci weeru mars gi nu génn Macky jamono ji nag mu ngi xool nes def ba rek bët fatt trou yi nga xam ne nii ndaw ñi fësal nañu ko Sud Quotidien nag wax ci gestion post crise ak perspective ci mille 2024 Benno Bokk Yaakaar nag jamono ji ñu ngi xoolaat nes def ba baliser euh, terrain bi enquête yéenekaay yi moom xëy wax nag jox kàddu ki nga xam ne ni moom moo di nongo Samba Sylla ngir rek waxtaanee mbiru pa xëy ci réew ba Sénégal muy xam ne ne nees def ba génnee ci guuta euh, Sénégal waaye dina doon du jafe ndax bu ñu ko sukkandikoo ci ay nee na Sénégal amul modèle économique bu koy mën a may mu daal di créer ay emploi ci nu mu gën a gaawee. waaye ngir am tamit benn million yi emploi euh, faw rek ñu daal di yokk euh, taayib secteur privé moderne bi daal di koy suuxalaat ba mu suux Euh, bu ko lu ko def euh, suuxal ba mu euh, suux lu ko defee rek ñu mën caa gis seen bopp léegi ko yéene kaay mel ni kuy jox kàddu ki nga xam ne ni moom moo di Fatoumata Ndéné Tall moom mi amal ab lancement bu njëkk ci ndaw ñi citoyenneté ci pikin mu mel ni rek mu nga dox ci tànku njiit Macky Sall may sàkku ñu daal di rek jox ndaw ñi ab xëy critique euh, yéen kaay yi nag dem gëstu ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di liggéey euh, guddi jamono ji nag ñu nemmeekoo nañ toog la ñu daanaka lu ëpp euh, ñaari weer yoo xam ne dañu biraloon ndax génn guddi amuloon couvre-feu beeg état d'urgence bi biñ leen yeeweeg léegi mat na une semaine nes def nag ba xam ñoom naka lañuy dundee ci guddi gi ak liggéey gi nga xam ne dooraat nañu ko loolee nag la critique yéen kaay yi def gëstu bu yaatu def ko ci xëtam gu njëkk source a moom def ci wàllu tàggat yaram ne euh, gaynde yi nag dañu am nul euh, ci kanamu euh, Diable Rouge yi bu Congo Brazzaville Aliou Cissé nag ñoom nee nañu ab vrai cas la stade yéen kay mel ni ku koy dëggal ni éliminatoire CAN 2022 Congo Sénégal 0-0 Lions yi nag ñu jàpp ñu jàpp ne dañoo teg 3 cinq deux wante Aliou Cissé jamono ji mu ngi wër boppam ba tey euh, gisu ko ñu jaxale ko ko sunu lomb mi daal di xëy fësal euh, combat Eumeu Sène Lac 2 euh, ñetteelu ndaje gi nag ca 2STV lay amee wante.